jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne tey ñu ngi fii ci parcelle Assainies seet fi kenn koo xamante ni kilifa la ci làmb kenn du ko présenté askanu Sénégal muy per Birahim Ndiaye tey ñu ànd ak équipe bu wasaare bi yëpp ngir ñu seet si ko jiital ci bopp bi sëriñ basiiru borom mbég mektaar bi sëñ Bas maa ngi lay nuyu. waaw Baye Jili maa ngi lay fay. di nuyu mbokki internet wasaare yëpp di nuyu suñ papa père Birahim mi toog di leen jaa di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel saa su nekk tey nag bàyyi jili euh, kàddu yi kàddu yi mbégte la ndax euh, li ñu yëkkati moo ni toll euh, mën naa ne suñu papa la ñu seet si sunu royuwaay suñu référence suñu lépp mu nekk ay tànk yoo xamante ne nii yàggoon nañu ko bëgg. Euh, ngir ànd ak moom ci liggéey bi ndax làmb moom képp ku ci yëngu fii ci Sénégal euh, boo amee ay ay euh, xelam mu lay xelal loolu mën naa ne mbégte la rawatina nag bu ngeen fas yéenee ànd liggéey te loolu rek junju la junju bi mooy fas yéene nañoo ànd ak suñ papa père Birahim ànd ak moom ci liggéeyu wasaare bi ndax door nañ ko bu yàgg doon béy suñu waar ndànk-ndànk. mais léegi la ko yàlla dogal pour ñu mën a ànd ak moom liggéey ak moom ngir ñu ñoo dolli ndax euh, làmb fi mu toll nii lu mu ci xamul rek amul njariñ dama koy faral di wax saa su nekk naan làmb bu doon daa am dictionnaire euh, tey moo ci baree bare baree baree bare booy demee danga nga naan Père Birahim moom moo ko ci def donc bu doon dictionnaire làmb am na boog Père Birahim mooy ki koy bind euh, loolu rek day xam-xam boo xam ne ni yàlla jagleel na ko ba tax na képp kuy wax ci làmb mënoo koo jéggi képp kuy dox ci làmb si mënoo koo jéggi kon mag mu mel noonu bu ñu ko fas yéenee am suñu kanam euh, mu ñuy teete dina gunge dina nu woon yoon wi naka la am naa yaakaar ne mbokk internet yi danañ gën a kontaan liggéey bi dana gën a ñoŋ dana gën a àgg fi nga xam ne fa lañ ko doon séentoo loolee moo waraloon suñuy tànk tey ñu fas yéenee ñëw officiellement waxtaan ak moom won mbokki internet yi ne Père Birahim désormais mu ngi wasaare làmb mu ngi biir wasaare. ci équipe bi wasaare bi la nekk di ñu magal nekk suñu papa nekk suñu conseil nekk suñu lépp moo waral ñu déplacé wu ñëw fas yéene waxtaan ak moom fas yéene koo dëgtal aussi mbokki auditeurs yi yëpp loolu moom moo nekkoon suñuy tànk tey. Euh, lu waral ñëw bi ensemble wasaare bi yëpp def délégation ñëw fii te benn nit ki comme yow mënoo woon ñëw wax euh, ñëw ñëw ñëw fii waaw jéem koo jox gëddam rek donte lii ñu def sax lu tuuti la ci cëram moom. ndax euh, mag la boo xamante ni mag mu fonk ay kàddoom la depuis bu ñu wax ak moom ba léegi yàgg na lool te boobaak léegi kàddu ya mu ñu waxoon ba léegi nii ca kàddu yooyu la tënku te diggante boobaak léegi lu bari jaar na fi te mënoon nañoo ñëw wax ji nekk commencement ñuy commencé waat di répété waat mais la ñu tënkoon ak moom ba léegi nii ci loolu noonu la taxaw donc mu nekk mag mu fonk ay kàddoom tax aussi ñu war a def délégation ñun ñëpp waroon na ëpp nii sax ndax li ma la wax rek jéem koo jox cëram. donte mënuñu koo jox cëram bi yëpp ndax moom moo ëpp lii tey bu ñu fi duyoon kër gi ba mu fees dell ak nit it mën naa ne mënuñu koo jox dayoom waaye dañu koy symboliser rek ak quelque personnes yi nga xamante ni tey mën nañoo ànd ak ñun pour ñu gisante ndax ñun ñëpp équipe lañ te comme suñu papa la euh, day jaadu ñun ñëpp ñu def déplacement ñëw mu gisanteeg ñun xam ne ñii ñooy ay doomam ñii la fas yéene àndal ci liggéey bi. jërëjëf sëñ jërëjëf Baye ci tuppi laa jëm tuppi yow moom xam naa eh, faral duñ la faral di gis ci wasaare làmb bi eh, nga présenté wu waaw euh, Toubi Brown waaw euh, animatrice waaye tamit euh, ci ginnaaw tamit maa ngi gérer benn poste enfin mën naa ne ñaari post muy tout ce la communication ak image wasaare donc wasaare làmb wax dëgg yàlla <laughs> xawma aw ma xam-xam bu bëri ci làmb mais quand damay seetaan parce que suñ culture tamit la bokk. voilà tey kii ñu seet see xam nga ko. Euh, bu baax waaw dama koy gis waaw dama koy gis bu baax euh, muy joxe aviam di joxe xam-xamam di joxe mën naa ne euh, c'est en quelque sorte un pilier de la lutte sénégalaise. Mm. ban nga ko njëkk seetaan mu wax nga gis ni li mu wax nii yëpp méngoog naag làmb ji. Euh, du ma du ma tudd tele mais benn làmb bu mag en fait boobu na c'était je pense Balla Gaye Modou Lo voilà après euh, comme ni ma la koy xee man soriwuma trop ci làmb dama koy seetaan parce que suñ culture la te j'aime bien mais oo ma ci xam-xam bu sori mais xam naa ne daal c'est un pilier et que c'est euh, c'est une légende qui est qui vraiment respectée donc pour ça tey euh, dañu àndoon. ñu nag équipe bi voilà équipe bi wasaare ñëw seet si ko taalal ko suñuy loxo pour mu ñaanal ñu waaw bokk tamit suñu équipe parce que dañ ko soxla waaw des personnes comme lui dañ koy soxla en fait. am nga mbër. déedéet man doo dugal. <laughs> merci beaucoup Djily. <laughs> mbokk yi kon Père Birahim lañu ñu fas yéene seet si ngir waxtaan ak moom comme ni ko sëñ Bass waxee ak tupi euh, Père Birahim maa ngi lay nuyu. waa jërëjëf auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu wa rahmatullah maa ngi leen nuyu mbooloo mi yéen ñëpp waa Wassare Lamb di commencé ci kilifa gu mag ca kaw. ba ci yéen ñu basak yéen xaay bi yéen ñëpp ak tuppeeg xëy na tey jàppaguma seen tur yéen ñëpp parce que tey la ñu gisante waaye maa ngi leen di nuyu di kontaan trop nag seen dérangement euh, bu ngeen dérangé woon nii rek ñëw waxtaan a yéen rek waxtaan ak yéen waxatuma laa ngeen ñëw nag ëmb taraanga ju toll na le dégg nga ëmb ko indiwaaleel ma ko dégg nga indi ceeb indi diwlin indi la cee war a ànd yëpp ngeen àndale ko ci loolu ma di leen sant di leen ci gërëm bu baax parce que taraanga du tuuti ki la yéene taraanga jënd ko indi jox la kooku yéene na lu nekk. kon nag ma sant leen ci gërëm lool te itam ngeen ñëw fekk ma ci sama domaine tamit muy làmb nga xam ne sama ndaw yëpp moom laa ko fooyee tàkkusaan bu rëy bu ne am naa ko fi waaw tàkkusaan bu rëy bu ne am naa ko fi te bis bu ñu àggee ci waxtaan wi di ngeen xam yan saan laa fi am ak yen bis laa fi am waaw kon yooyu dinañ ci ñëw yi waaye daal kontaan naa trop ci ngeen teew sama kër fii tey and fii ci unité 22 yàlla def it may délégué de quartier bi boole ci waaw quartier bi it mu wóolu ma dénk ma ko. gannaaw yàlla may ñaan ñi seetaan ak yéen ñëpp ngeen ñaanal ma ci yàlla defal ma ci réussite waaw njëkk mooy wasaare dañoo ñëw dajaloo ngir def def équipe woolo ngir nga ñëw nekk suñu baay xelal ñu ànd ak ñun ci liggéey bi nan nga ko gisee. waaw ni ma ko gisee loolu mooy mu lu mu rëy lool ci man parce que boo xoolee euh, suq bu mel ni man am na ñu ma gën a doon champion. ay champion ngi fi yoo xam ne yi daanaka carrière bi ñu def defuma ko ci ñi ma maaseel jamono ak ñi nga xam ne ñoo mag tuuti ku mel ni ñoom Mbaye Guèye ku mel ni ñoom Double Less ku mel ni ñoom Boy Bambara grand yooyu ñun ñoo topp si ñoom dégg nga ak ñoom grand Mbaye si ak ñoom grand Pape Touré ak bari na daal tey jii ñoo ñëpp am nañu xam mais su ngeen leen fa bàyyee ñëw ci père Birahim ne père Birahim kat ñun dañu am lu ñu lu ñu sos muy wasaare lamb doon équipe bëgg di yëngu ci làmb ji bëgg cee def innovation bu mag ñu bëggoon a doyloo sa xalaat nag ñëw ànd ak yow bokk liggéey ñëw sàkkuma ci bàyyi ñëpp tàmm tànnuma man lu may sant leen gërëm leen def ak am ci mbégte lool nag parce que sa waay ji junjoon na ma ko fi waaye boobu ba léegi nag xam naa dafa jotagul woon parce que àddina lu jot rek yomb waaw mënoon naa am yéene bi te tey jotul parce que man ñi may soxla ci affaire boobu sax bari na. tiitaroo ma ko demee ma ko parce que amoon na beneen saal boobu bu ma yoroon site boobu dañ ko jekk yoon arrêté ko que événement amoon tax ñu arrêté ko boobu waaye kon tey bu ay nit ñëwee tam waxtaan man ne dañu bëgg liggéey man dama yaatal mbir mi. parce que mas naa ko wax ne ko ah gars yi ma bëgg seetaan ba ne dañ may woo télé dañ may woo fu ne mu ne ma loolu du ci dara waaw waaye nag yéen bu ngeen ñëwee bëgg a man ñu liggéey ah dama ne tàllal loxo rek ubbi leen bunt bi waaw. waaw. dañ koy tënk rek. Euh, dinañ ko yeggale incha allahu rabbi ginnaaw père Birahim moom mu ngi fi ñu ñaanal ko yàlla suñu borom may ko gudd fan lool te mu ànd ak wér ba bépp naal boo xamante ne fas yéene na ko suñu borom kàttanal ko ci dooleel ko ba mu defee ko ni mu ko bëggee ñu ànd ceeg moom père Birahim ñu lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax. di ñaan seen sud biir yàlla def ci jàmm rek def ci sutura ngeen fas yéene ànd ànd bu rafet. gis nga ànd bu ngeen ko rafetalee mën naa jur lu nekk ci àddina tuddantey mën na ci am takkantey jabar mën na ci am dégg nga defalante ay teraanga mën na ci am te foog site bee leen boole woon loolu nag da ngeen koy cultiver léegi cultiver mooy ànd ànd bu dëgër ànd bu rafet kenn mën naa jóge fa ci àll ba sax bëgg a yàq seen diggante wax bu ne cocc ci yow ci euh, sama boy bi albas ah, nga ne ko non bas sama gannaaw la wala bas sama frère la bul ko bul sori bul sori bas sama nit la nga ne sa yéen sa xale bu jigéen boobu nangam nangam kooku seen xale bi dafa nii wala ko déet tegal ci suuf tuppi suñu jigéen la suñu rakk la suñu xarit la ku baax la bul ma waxati loolu xam kooku dootu fi nettali waaye koo jox nopp mu déglu la booy koo jox nopp mu wax la te bu xel ya xel dafa yàgg yomba ñaaw. liñ naan saay saay waxul dëgg waaye yàpp ma saa kon yéey nga saaroo tari nga saar ba loolu ngeen di moytu ci mbooloo nag mbooloo mu ngeen bëgg a dox rek suudewu tey defaru di laaj lu ngeen xamul laaj leen si di loolu rek ko fi doxal waaw ta tasaaroo di information yu dëggu nag information yu dëggu mooy taxal site mais information xam ne ay ñoo xam ne ay tappale ki fen rek la ñuy wax noonu loolu baaxul ci site da koy daaneel.